di ca RFM euh, euh, suñu ay naataango Babacar ak ñamuy àndal ñu ñi xam ne nag euh, moom di ganam léegi léegi lay doon Babacar ñuy déglu yéen ànd ak ñun jërë ngeen ngeen jëf ci déglu ñu ci biir bus Dakar Dem Dikk bii. woy leen di RFM matin bi yee waa Sénégal. ñu dalal sunuy gan sunuy ndax waa sapeur pompier la ñuy dalal. waxtaan beeg solo si moo tax ñu indi ci ñaar ci kilifa ki ci njëkk di capitaine Kaynak John chef division prévention et euh, bu brigade nationale sapeur pompier capitaine John ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. ñu ngi nuyu itam major Maguette wàdd yow ci biir pompier yaa fay euh, commandant compagnie secours intervention subaquatique maanaam wàllu lab yeeg ñoom ñoom seen ñi ngi ci euh, wàllu ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. ñu euh, tàmbalee waxtaan wi kon léegi xam ngeen ni li ko sabab mooy la xew ca Malika bakkan yu bëri ya fa rot ci ay gone yu demoon di di sangu ji géej foofa. Euh, capitaine Kaynak Dione est-ce que mën nañoo xam ñaata nit ñoo lab foofa ca Malika dëggantaan ndax euh, euh, chiffre yi ñu ciy dégg bëri na lool. ah jërëjëf Fall dëgg la chiffre yi ciy wax bëri na waaye balaa may tàmbali damay gërëm d'abord waa RFM yi ñu may occasion ba ñu mun a exprimer wu pour que askan wi mun ñoo dégg di ñu gis di massawu it ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan. donc foofu ca plage Malika ak yeneen plage yi nekk ci Sénégal waaye comme question bi ma posé Malika la donc Malika ototal total douze victimes lañu woon maanaam fukk ak ñaar waaye juróom-ñaar yi ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan ci juróom-ñaar yi ñàkk seen bakkan am na juróom yoo xam ne génne nañ leen mais ñoom ñàkkuñu seen bakkan donc bu may def bilan bi pour Malika juróom-ña euh, juróom-ñaar ñoo ci ñàkk seen bakkan sept corps sans vie ak cinq repêchés vivants. Mhm. amul kuréel gis nañ ñëpp. ah ndaxte tey biig ci guddi vingt deux heures signalé nañu brigade nationale des sapeurs pompiers benn corps di identifié bu génn mais kooku ci plage yu géejawaay la. Gaddaay waaw Gaddaay. Mhm. plage yu géejawaay plage yu géejawaay ci boppam passerelle. Mhm. am na kenn ku ñu ku ñu signalé démb ay vingt deux heures. am na aussi keneen ku ñu signalé toujours plage yu géejawaay six heures quarante tey aujourd'hui donc am na ñaari corps non identifié yu génn tey yu génn kenn tey kenn démb ci ngoon. mën nañoo njort ni. Euh, mais ñooñu euh, place waa Malika lañ bokkoon ñi hmm? nekkoon Malika ñi demoon Malika la. parce que comme boo labee léeg-léeg courant bi da yóbbu ndax ñi euh, laboon géejawaay la wala ñi laboon Malika en tout cas daal ñaar génn nañ yoo xam ne signalé nañ ko brigade nationale des sapeurs pompiers démb ci 22h ak tey ci fajar gi 6h40. Mm-hmm. donc bu yokkoo ci waa Malika yi mooy sept corps bi yi donc ñooñu day daal di nekk juróom-ñeent muy juróom-ñeent ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan. Mm-hmm. Euh, Alain Ndiogou ñu wëlbatiku ci major Maguette Wade commandant de la compagnie de secours et d' intervention subaquatique. Mm-hmm. lu jëm ci wàllum euh, lap yi euh, lu wees fan yi gis nañ ne bëri na trop ndax am ngeen xayma yu mujj jëm ci lap yi nga xam te ne nemmeeku nañ ko fan yi fii ci Sénégal. ni ko capitaine bi waxee d'abord euh, damay wu ñi nga xamante ne ñooy euh, waajuru xale yi nga xamante ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci géej gi n'est-ce walla di wax ne effectivement fan yi seetlu nañ ne noyade yi dafa commencé waat di bëri mais noyade yi lu muy bëri yëpp dañuy xool ne dafa am benn zone boo xamante ne foofu lay ëpp lu muy amee muy maanaam fi nga xamante ne foofu la événement bi amee ci weekend bi waaw. mooy diggante fan ak fan Malika jàpp fan. mooy diggante Malika gàddaay Malibu. donc hmm. foofu mooy fi nga xamante ne foofu la noyade bi di ëpp mais suñu seetee xam nga fu mel ni plage yu Bessaya Yoof jëm ba saint bi même littoral bi la même littoral bi la. donc ce qui veut dire que ne à partir de la BCEAO amoon na ay jamono yoo nga xamante ne BCEAO dañu interdiroon nit ñi di fa sangu mais à force nit ñi di continuer di fa dem donc dafa am ay dispositions yoo nga xamante ne moom la ñu jëloon mu yenn disposition mooy maanaam dañu former ay maîtres nageurs yu dëkk ci localité boobu loolu weesoo ñu jël benn zone boo xamante ne dañ ko baliser sécuriser ko nga xam ne nit ñëpp bu ñu ñëwee foofu la ñuy sangoo donc ñi fay sangoo maître nageurs ñu nga fa brigade national des sapeurs-pompiers am fa ay éléments yu parcelle Parcelles Assainies di leen assister loolu moo waral même su fekkente ne BCEAO noyaat dafay am donc rapidement nit ñi dañuy intervenir donc c'est très rare nga dégg actuellement ñu nit dee si plage yu BCEAO. wàllum chiffres yi laaj bi laaj sànq wàllum chiffre maanaam euh, bi at mi tàmbali ba léegi wala ci weer yi ñu mujj jëm ci wàllum noyade yeeg euh, lapp yi. waaw wàllu chiffre yi moom la la. Euh, capitaine bi joxoon léegi. moom yu mujj bi Malika bi la wax mais globalement chiffres yi am nañu capitaine moom moo yor chiffres yi. voilà léegi bon bu dee voilà très bien. capitaine voilà jërëjëf Ndiobou. donc pour statistiques yi maanaam bu ñu jëlee année deux mille vingt bi ñu génn nii. ñu ngi toll ci deux cent vingt deux corps sans vie par suite noyade donc muy euh, ñeenti ñaari ñeenti téeméer laay wax. ñaar téeméer ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñaar deux cent vingt deux corps cent vie suite noyade. deux mille vingt waaw deux mille vingt. ah bëri na de. bëri na bëri na. Ah. léegi 2021 bi mu commencé ba léegi ñaata ngeen am. 2021 ñu ngi koy xayma à ñu ngi ci une centaine actuellement. cent. waaw janvier ak léegi. waaw. ñooñu fu ñu labee. bon lab yi daal yi ci ëpp comme ni ñu ko waxee noonu am na ci yoo xam ne ay catastrophe la maanaam ñoo xam gaal yu réer yi xam naa ne temps yële dégg ngeen ay gaal yoo xam ne dañ leen a porté porté disparu laay wax sax ndaxte règlement bi day wax ne tànk deful mooy nappkat yi ñu leen waa duñ leen mun a compté comme ñoo xam ne gaañu nañu mhm. muy ay coté mbuur rek defe naa ne yooyu yëgoon ngeen ko ñu bëri ñoo xam ne dañoo demoon géej ay fukk ak nàngam wàññeekuwuñu caaroy aussi même chose ñoo demoon ba tey bon porte disparue laa leen di wax waaye mun nañ leen a considérer daal comme ñoo xam ne daanaka ñàkk nañ seen bakkan maanaam ci ndox mi. Mhm. xale yi doon jël gaal jëm Europe nag bokkul ci xayma gi. ah ah, ah kañ tout à fait. loolu ban chiffre ngeen ci mën jox du ñu mun a am statistique. exact parce que seen. am léegi approximativement. voilà approximativement rek ngay mën a am. wala bu ñu basé woo ci enquête par exemple ay police wala gendarmerie. waaw mais munoo xam chiffre exact yi ndaxte seen i embarquement comme ay clandestin lañ da ngay dégg rek ci ñaata la war a toll à peu près. Ah, ñooñu moom seen xayma xam naa ne y a de police ak de gendarmerie ñoom ñooy mun a joxe exactement ou bien approximativement donc les chiffres. qui hmm. vont qui vont bien. Hmm. major Maguette Wade lu tax euh, sangu diggante plage euh, BCEAO maanaam centre aéré BCEAO bi nekk diggante yoof ak Parcelles. lu tax euh, diggante foofu jàpp Malika ba boori Lagos du tax sangu fa doon danger lan moo nekk ci tefes googu. voilà donc euh, mooy li ma doon wax léegi rek parce que même littoral la rek euh, depuis plage Bechao jusqu'à Saint-Louis c'est le même littoral donc zone boobu dafa nekk zone bu nga xamante ne c'est amul amul xeer maanaam c'est pas une zone qui est rocheuse. maintenant su fekkente par exemple vagues yi dañuy ñëw du am lenn lu nga xamante ne dinañ ko mën a arrêter donc les vagues les vagues là dañuy ñëw ak force vers la plage mais à chaque fois vague su ñëw aussi vers la plage y a ko qu'on appelle le retour des vagues parce que vagues aussi dafay delluwaat maintenant en ce moment suy retourner dafa am lu ñuy wax ay bayin may maanaam ay xur loolu ay genre pax la yoo xamante ne ci marée basse ou bien ci marée haute yi lay faral di amee donc du maintenant su fekkente ne vague bi dafa def retour maintenant lépp lu nga xam te daf ko fekk à son passage daf koy yóbbaale mais mun nga nekk mag sax mais ak force bi muy retourner il se peut mun la yóbbaale là en ce moment buy retourner dafa am ay canal yoo xamante ne parfois aussi nit ñi si la leen di entraîner maintenant canal boobu su fekkente ne jël na da yóbbu au large su fekkente ne nag vraiment tu n'es pas un bon nageur donc là c'est la noire en quelque sorte. même même boo naajoo sax génnewu la ci. même boo na même boo naajoo sax génnewu la ci nest pas donc li lay may chance mooy au retour de ces vagues là nga dal ci benn ci benn passe. parce que di dox lu mat dix ou bien quinze mètres en profondeur donc ndox bi daf lay tollu ci sa genou donc loolu moom la ñuy wax les passes maintenant su fekkente ne que vagues yi dafa la entraîner vers mën nga am chance nga dal ci passe yi tu peux être sauvé. au cas contraire bu la entraîné ci canal bi donc là c'est la noyade. Mhm. Mhm. capitaine Dione euh, ni ñu ko defee BCEAO euh, def délimitation balise wax nit ñi yem leen fii lu tax mënuñ koo defal ñeneen ñi muy waaye di Malika euh, organiser ko sécuriser benn xàll benn périmètre ci géej gi ne bu kenn weesu fii gannaaw dem géej xëy na mënul ñàkk. dëgg la Fall. ni nga ko waxee noonu la bu fekkonte ne def nañu balisage maanaam ci plage yi nga xam ne yëpp moom la ñuy fréquenter def fa aussi service de surveillance def fa ay maîtres nageurs à partir des communes donc jombul noyaat du bëri wala du am sax. liggéeyu communes yi la. mais nag bon ñun brigade nationale des sapeurs pompiers nous sommes une entité appartenant à l'État sama division muy division prévention. fépp foo xam ne nii gis nañ ne jéye war na faa am ñun dañuy def li ñuy wax visite technique de prévention soit entité bi fa nekk laaj ñu ko wala ñun suñu commandement bi dans le cadre de nos missions régaliennes nañu dem leen ngeen def visite de prévention en tel lieu fu ñu ci demit dañuy def analyse du risque def étude du danger fii lan moo fi war a mën a nekk jéeya ñu daal di def ce qu'on appelle des en matière de sécurité fii de bu ñu fi defoon nangam balisé woon fii de bu ñu jëloon ay buwee teg ko ne nit ñi nañ yem fii. est-ce que mës ngeen ko def Malika. def nañ ko yëpp yëpp am na këyit jox nañ ko kilifa yi ko war a jox. application ba nag kooku moom dafay daal di génn suñu loxo. ci wàllu boobu justement euh, démb fii ci RFM ci point de vue ñu ngi dégg Amadou kanaar Diop euh, nekkoon euh, directeur général adjoint bu protection civile nekkoon pompier di wax ne jamono ji dañu war a def révision de la planification des plages maanaam plage yi comme que bañ koy classifié di kenn du fi sangu fi lañuy sangu lu yàgg la woon depuis 1960 jot na tey ji ñu xool naka la ñuy xoolaate mbir moomu plage yi est-ce que yow loolu lu sa ci lu ni dëgg la dëgg la li mu wax dëgg la war nañu koo defaat mais déjà y de l'existant am na loo xam ne mi ngi fi te plage yooyu jóguñu fi yi ñu interdiroon ba tey dañ leen a interdire plage yi ñu interdiroon yeneen plage amaatu fi yooyu ba léegi dañ leen a interdire waaye nag nit ñi aussi il faut dans un cadre de sensibilisation donc plus élargi ñuy xamloo nit ñi ne fii de dañ koy tere lan moo tax ñu koy tere parce que y a des risques de noyade surtout li mu wax les courants de baleines ñi ëpp ci ñi lab loolu moo leen lab loo ndaxte ndox mi comme ni mu ko expliqué sànq ndox mi vague yooyu bu ñuy dellu dañuy entraîner dañuy yóbbu ñi nga xam ne nag ay plongeur lañu ay grand nageur comme moom moom c'est un plongeur c'est un spécialiste subaquatique mm-hmm. bu ko jàppoon bu fekkoon ne dugg na nga euh, courant de bàyyam bi jàpp ko day bàyyi boppam courant bi yóbbu ko dalay yóbbu mais da ngay bàyyi sa bopp loolu sago boobu nag la xale yi ak ñi xamul géej dul am da ngay jéem a débattre pour génn ci courant de bàyyam bi munoo ci génn li ñuy li ñuy dégg li ñuy dégg naan sable mouvant maanaam ñu ni boo taxawee ci tefes googu boo seetloo sa tànk day gën a dugg est-ce que loolu lu wér la walla xalaat bu bu am ànd ak njuumte la. xaw na ànd ak njuumte mais courant de bayin yi surtout côté géejawaay mooy yóbbu mooy yóbbu nit ñi ndox mi moo day def comme courant rek maanaam daf lay da da lay buy dellu da lay day yóbbu. day da lay yóbbu léegi nag boo nekkee un bon nageur xam ànd ak sa sago da ngay bàyyandi rek mu yóbbu la. da koy bàyyi rek dalay bàyyi da lay yóbbu rek téyel mais dalay lay yóbbu au large la lay mais seen liggéey la tamit ginnaaw yaa yor prévention ñu yee askan wi ci loolu di ci def ay campagne di ko wane ci télé yi di ko wax ci rajo yi euh, am déet dëgg la dëgg la large campagne moom war na ci war amoon na sax mais war na continuer di am pour ñuy mun di sensibiliser ñi nga xam ne ñooy dem ci ci tefes yi mais surtout ñuy appliquer les mesures de sécurité parce que quoi qu'on dise bu ñu nee lap am na ku demul géej doo lap certes am na nag ñuy lab sax ci seen biir saldo ci seen biir bassin seen kër mais bu ñu nee lab ci géej ku fa demul d'un doo lab ñaareel bi euh, le rôle régalien de l'État est d'assurer la sécurité de ses populations boo xoolee ay maîtres nageurs ñoom Maguette major Maguette formé nañu ay maîtres nageurs hmm. pour que moment yi nga xam ne day am afflux ci yenn plage yi muy am de maîtres nageurs yoo xam ne ñu ngi fi ñenn ñi sax dañ leen a defal ay ay ay ay genre mirador. jox leen ay mooy doy ñu maîtres nageurs yeeg. Euh, voilà ak plagistes doy ñu. tout à fait mooy problème bi jox leen ay jumelles. ñuy xool jox leen ay bàyyi maîtres nageurs yi pompier pompier pompier yi tamit doyul. Mm. jumtukaay yi des na xam naa du ngeen ko mën a wax waaye bàyyi ñu waxal leen ko euh, euh, jumtukaay gën ngeen ko soxla noo. dëgg la mais ñun moom alhamdulilah rabbil alamin vraiment. parce que temps yi mujj rek am nañ un plan d' équipement polytechnologie de vingt six milliards ay canon de sauvetage yi mu amoon moom ci compagnie léegi am nañ ci vingt yoo xam ne yu mag la am nañ même ay vedette yoo xam ne ni vraiment bon sur le plan de l' du ma ne matal nañu. waaye wax dëgg yàlla yi ma gis ngeen yor yàgg na. non am nañ nag yu bees pepp. <laughs> amul hmm. actuellement dëkk bu nekk ci littoral maanaam nekk ci plage géej nekk fa te amuñu équipement bu bees moom kañ kenn du ne doy na waaye macha allah vraiment on est bien équipé quand même. waaw doyul nag mais am nañu vraiment loo xam ne macha allah mën nañ koo liggéeyee. Mhm. vraiment ça il faut dire la vérité avec le plan techno euh, polytechnologie. capitaine John ñu jublu ci euh, major Maguette Wade mhm. am nañu jàpp ni li tax euh, yeneen tefes yi fees ba lab yi bëri bokk na ci Dakar léegi dañu privatiser plage yi maanaam dañuy jox ay kayit nit ñoo xam ne dañuy ñëw ci benn tefes. wër-wërale ko tabax ko di fayee nit ñi ñu fay ñëw est loolu bokk na ci li yokk plage yi di fees ba gérer nit ñi ñëw ci plage yi jafe. bon plage yoo nga xamante ne dañ ko privé je pense que plage yooyu barewul trop comme ni ñu ko xalaatee parce que suñu xoolee Val d'Or mooy nekk une plage privée Malibu ak euh, teeru bi donc plage yu si des. moi je dirais hmm, que bëri na diggante yoo foog Ngor itam de. waaw Almadies ñoom seen. non non foofu foofu laa jëm. c' est que à Ngor à Ngor ce n' est pas une plage privée. mais ñoom dafa am euh, benn système bu nga xamante ne moom la ñuy fonctionner seen plage c'est-à-dire que ñi nga xamante ne dañuy ñëw di fréquenter plage boobu dañuy dagg benn ticket boo xamante ne c'est à deux cents francs à titre symbolique bon pourquoi loolu di am parce que ñoom ils ont formé des maîtres nageurs maintenant il est très rare nga gis saison été commencé bu jeex nga dégg ñu ne encore am na cas de noyade parce que tout simplement deux cent yi nga xamante ne moom la nit ñi di participer benn c'est pour. jël ay maîtres-nageurs jël ay maîtres di leen fay. et en même temps dañu jël ay nit yoo xamante ne ñoom ñooy entretenir plage bi parce que les gens bu ñuy ñëw foofu donc dañuy indi seen lekk pour pique mais suñu pré pratiquement foofu lañ koy def donc il faut mu am ñu nga xamante ne dañ koy entretenir. mais dès l'instant mu am fay major euh, privatisation dugg na maanaam euh, fay gi bu amee privatisation la. bon d' accord mën nañu ko jàpp privatisation mais c' à dire c' par rapport aux autres plages yi nga xamante ne par exemple euh, l' entrée c' est à 1500 francs ou à francs donc foofu bon je dirais que ne xëy na symbole la bu nga xamante ne pour l' des plages et le paiement des maîtres nageurs. Mm-hmm. Mhm. jërëjëf major Maguette Wade capitaine Kaynak Dione euh, sangu guddi gi itam gis nañ ni euh, gendarme rek police ñu ngi koy euh, ñu ngi ciy am taxawaay di ko tere nit ñi boobu tam moo gën a dangereux sangu guddi géej parce que dañuy gis ñu la ay piscine pâté même bu dul géej sangu ay piscine pâté ay bain de minuit ah, yi xale yi xewal yooyu itam bokk na ci danger yi. dëgg la kooku moom danger bu mag la bu fekkee ne bëccëg bi sax moo dangereux. estomac guddi gi kon daal maa ngi ñaaxaat sama bopp di lancer un appel à la population surtout à la jeunesse ndaw ku nekk jaar na ci waaye nag am na ci yoo xam ne moom risque da cee nekk mooy ñiy dem ci guddi gi géej di sangu ji di def ay piscine party di def yëfu gone en tout cas ñu ngi leen di lancer appel ne leen la mer tue géej gi day rey kon nañu jéem a xoolaat parents yi aussi gën a Euh, amaat encore visuel ci kaw gone yi pour ñuy bañ ci def yenn yi nga xam ne ëllëg si biir mën na leen a indil ay loraange. Mhm. jërëjëf euh, capitaine euh, Kaynak Dione chef division prévention bu brigade nationale des sapeurs pompiers jërëjëf itam major Maguette Wade ci pompiers yi yow yaa fa jiite compagnie. de secours et d' intervention subaquatique maanaam wàllu gi ci wàllu lab yeeg ñoom seen mm-hmm. ñu fàttali ne jox ngeen ñu fi ay xibaar ne di at mi 2021 tàmbaleeg léegi luy tolloo gën gaa tuuti téeméeri nit ñàkk nañ seen bakkan lap ci géej bu dee daaw moom 222 personnes ñoo lap jërëjëf ci waxtaan bi jaa jëf njoogu jërë ngeen jëf mbokk yi ziar Cheikh ak Chérif ak Mortala ak Modou ca geneen wàll ga ngeen doog jàmm